3S Pro. jërë ngeen jëf mbokki safa seetaan te làmb bi bu baax baax di leen siyaare di leen def seen wàccuwaay te nag làmbaloog nañ dalal pendant combat après combat dañuy ñëw si moom mu décortique di combat bi nu mu demee avant après combat tamit dañuy ñëw si moom wax ñu nan la combat bi demee Leuz dañ koy bàyyi mu nuyu ak mbokki seen lamb TV Leuz ñu ngi lay nuyu baax di la siyaar waaw salaamaaleykum salaamaaleykum monde entier salaamaaleykum Sénégal waaw di nuyu ñëpp di masawu ñëpp di ñaanal ñëpp waaw di sàkku ñaan si ñoom waaw di di ñaanal monde entier amul ku Leuz bu bàyyi képp kuy bëgg làmbaloo rek làmbaloo nga lay ñaanal di sàkku ñaan si yow waaw di gërëm ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp parce que ku lim juum affaire kii mooy borom tapisserie Touba Xayra borom borom photo yu baax yi. photo yu baax yi si réew wala borom oto bi da koy defar tapisser la ko ba mu baax tiise loo si bëgg ñëwal sëñ Assane numéro mooy daw si li si réew mi. boo demee Touba Xayra boo ko déglu jëlal temps te xam ne tap borom tapisserie baa fa jaar. loolu la man ne la mu neex. su ma waxtaanee mu neex. su ma doon su ma doon dox sax mu neex. loolu yàlla moo koy def si nit Kalidou. Ah. du du du ñëpp mën loolu. parce que nit bu xolam rafetee lépp la mën a mu saf gaay mm. mais bu nit bu xolam rafetul jarut muy def luy dem si xolu nit ñi parce que dootul rafet. Mm. waaw di ko nuyoo ñëpp di masawu ñëpp di leen xamal retour bi ñëw na. Mm. du yomb gaay yi namm nañ ma mais maa leen raw fuuf billaa wala taala. ñu ne Mara su matee Mara dëgg. su matee Mara dëgg du doxantu dañ koy doxal. wala mu génn réew mi dox tukki maara buy tukki fu neex fu amul garab du ma ah péexa ma ko yóbbu mais wëri mu ne ma ay ay ay ay dotti Dakar yoo xamante ne toobu dib yooyu xamoo ko yow kàldu mais tobb tobb day nekk si maanaam neew nga gis beneen garab formé wu si kawam mhm. genre yooyu la sëñ àll di wuti wala mu gis tàgg boo xamante ni amul Sénégal mhm. waaw waaw di gërëm ñëpp di xam ne Bambey bàyyi wuñ xel sëñ àll mhm. mais sëñ àll monde entier bàyyi na ko xel parce que xool leen làmbaroo rek war ngeen a xam ne moom monde entier bàyyi na ko xel muy sëriñ boo xamante ni bu ndoxee ñëw da naan kii du sëriñ mais bu jëfee rek nga xam ne kii moo mën gaay waaw di ko nuyoo ñëpp di nuyu sëñ Fallou Seck borom tapisserie di nuyu sëñ Fallou Mara moom tamit sama waay sama xarit dañuy jokkoo dañuy déggante. waaw sëñ Fallou Mara moom borom jàmm gën. sama waay la waaw liñ naan ngande te amoo njariñ tuuti te am njariñ da kaa gën. di nuyu ñëpp. ma mas di dugg si combat bi. le premier janvier xam naa fa dañuy dugg si ki nga xam ne ni mooy booy Niang ak Modou Lo di félicité ki nga xam ne ni mooy Modou di encouragé booy Niang waaye maa ngi nuyu Abo Sarr cinq borom Paris la France PDG di nuyu Ndeye Mbacke si combat Boy Niang ak Modou Lo nga ma mën a wax avant bi. avant loolu ma nuyu Ndeye Mbacke waaw Ndeye Mbacke nam nañ la borom Maroc sama jigéen sama rakk sama xarit. moom naar ke bi njuga aale borom nag ak may hop hop mooy waaj a daanu waaw ndax nday Mbacké dafa mën li muy def te xale la yaru na bëgg na boppam di nuyu sëriñ sëriñ gars yi namu nañ ko mais sëriñ daw na dóor naa koy kuubam taw dëkk waaw dëkk ñay lakk ñay yomb na sëriñ waaye wëlbati koo jafe mais du borom baax la nag mais gars yi ngi koy laajte rek nag mm. waaw sëriñ jàppal rek dina baax waalo waalo bi kenn du moom su ma waxee sëriñ rek sama xel day dem si grand ligne borom géej gi xanaa xamoo borom géej gi waalo waalo la. borom géej gi. hop hop hop su ma ko tuddee damay sawar xam nga lu tax may sawar. kooku dafa ma seetaanul. seetaanul sax sama xarit borom géej gi ku ma ko ni kii sama xarit la. nee na ku ko wedd dama nee na ma jox ma numéro. waaw te loolu. sa sann sa sànn sama yaram dafa tàng. joxe yo xam nga joxe yombut. joxe yombut. sama yaram daa tàng ma wéef la waaw kooku mooy borom géej gi. grand borom géej waalo. alu yaa baax. mooy waalo waalo bi. mooy tax ga gàmmu waalo gëm ma ni ren dinaa ko umpale parce que dama am ay waalo waalo. Mm-hmm. li ma naan waalo bëggul ku leen tooñ waaye ku leen tooñ yëg gi leer na si Jackson. Mm-hmm. ba ma ko dalee wax si Jackson ba léegi yéen a ngi koy gis. la deger guerre waalo waalo yàgg nay sa am champion. waalo dañoo bokk si yax bu rëy. waalo segam jigéen ñaay bañ gën góor ya te grand Aline waalo la dëkk waalo lay nooyee deretu waalo waalo la. di ko nuyoo waalo waalo yëpp di ko nuyoo kajoor kajoor yi saalum saalum yi bool bool yi bàyyiwuma kenn. bu ma bàyyee kenn rek man du ma gor parce que ñëpp a ma bëgg waaw kay bàyyi. combat Modou Lo Boy waaw combat Modou Lo Boy moom hop hop hop leen ko waxoon ne leen Boy Niang mii su munta bagaar ak sawaay ba mu ne neem munu koo daal bagaar na wala bagaaru ba Saxira bi ñu doon wax naan Boy Niang fa la ah, daa tëj wala ma jàngale boxe mën hmm. na leen kuy Modou Lo ak kuy Boy Niang bokkul. parce que seetaan na te ñaari image yu box yi tey bi ñuy xeex xeex boobu xeex bi boo ñaaw xeex bi ñu ko indil est-ce que réussir na si réussir si xam nga. demoon naa leen tamit xeexu géew ak xeexu biir bi ak xeexu box duñ benn ni ñu doon xeexee ak box ni ñuy xeexee est-ce que benn la boo xam nga bokkul moo tax gis nga mbër ak fas ak jéega yam ku leen judd lu mën a xam fu ñuy bañee mais ku leen si xamul si seen judd mënoo see waxtaan wala boo si waxtaanee da ngay tànte te man tànte wu ma man dama lay wax qualité yoo xamante ni ku ko si weddi gis ko Boy Niang lépp lu moo xamante ni waxoon naa ko ni ko boo ko bëree amul dara lu mu si def Modou lépp lu ma ko waxoon ne ko xaar ko moo ko arrangé xaar na ko cinq minutes waxal bi mu indee dara la Modou dem décider te Modou Lo arreeru benn yoon te Boy Niang waxoon naa leen bu si paree si ngeen xam Boy Niang li mu si am Ama du ko si am Boy Niang mi nga xamante ni moom am kan mooy Modou Lo dëggantaan mais am na ñoo xam ne dañuy préparer pour combat Modou Lo mais duñ préparer Modou Lo mënuñoo préparer Modou mun munoo préparer combat bi te préparer wo adversaire bi adversaire bi nga war a préparer yow mbër mi ginnaaw gi dem préparer combat bi mais ñoom dañuy ànd ak mbër yi dañuy ànd ak ginnaaw gi dem préparer combat bi ak fañ koy préparer ba ñëw bi si biir géew bi léegi mbër mi nag li ñu ko war a préparer woon war ko ko yàqal doo am dara loo yàq. mais yi ngay naan ay làmbaloog daa ay sëriñ yu koy dee làmb noo gisee loolu. non non non tamit man man man yàlla moo def ma yàgg si aar bi ku jag ku jàgg ci teen di baag fekk la fa man sëriñ yi ma am bariwul man ku ma xam si àll nga te sëñ nekk naa mbër nekk na koo xamante ni bu doon wax comme ni gars di génne nii naa la ay jiway parce que ñun xam nañ ko dootul ñu koy discuter kii ja nekk na waa police mu ñëw fekk ma fa 10 heures na ma midi. yaa nga fa. yaa nga fa. wax mu dindi si poos bi na ma sexal midi. 11h45 <laughs> bu ma doogoon dama nag laa toll. parce que man kenn du ma xoj man police damaa war a wax raay. parce que sëñ Alla bu ma fa yebalee nit même bu nit amul dara man lay wax. kon man du ma yebal ci benn sëriñ bu bëgg a liggéey liggéeyal ku mu neex yaay liggéey Serigne bu doon gagné Modou Lo gagné ke ah ah boo ñaa gagné Modou Lo pourtant Serigne am na ko mais Serigne yi noonu lañ mënante mën na Serigne yoo xamante ni uniquement danaa la demal ma téye ginnaaw kurus waxal toog fi nga toog téel la ko kurus Modou bu amee Serigne yooyu esérage yooyu indi ko Modou Lo daan na gaay si galaaj ba ñuy bëreek ñoom si saf mbër ba pare jor roi des arènes tekki galaaj yëpp di bëreeg ñoom si yaramu ne te Modou li ma gën a neex si moom mooy ñaari booy yi gën a ës rakkaaju si xam nga lu ko may parce que Modou Lo moom rek moo jël roi des arènes daan ci ñaari mbër yi gën a tàng si retour Modou ñi retourné ñëpp am nañ problème si seen retour Balla Gaye bi mu retourné dina mais booy sance am na problème wala amul problème Tapha mii di naan Modou la soxla ki daan Modou la Modou ki ko daan la Modou Lo daan. kan Ama moo mujj si kaw Tapha Tine Modou ko moom ci Modou waaw kon lu muy wut si Modou Lo lan tey dañuy wax benn image bu xoolal Tapha Tine ku mënta bëre ak moom amul ndax kuy ngemboo darab bokkut ak kuy ngemboo ñaari yaar Tapha mat na mbër booy yi yëpp ñu leen di jox ba dama leen doon wax booy da leen di nappaaje Tapha Tine bi mu jàppee booy ñaa nii ko Modou Lo def nii Tapha Tine est daane na ko noonu daane wu ko noonu mais boo ñaa taxawul benn yoon te tey jii Modou mi muy xeeb nii da taxawal dawal Modou Lo moo tane sax dawal Tapha Tine ndax ah moom jour boo ko Ama Baldé di daan moom Tapha Tine Ama Baldé bougé lu ko meetar te jamono yooyu la Tapha Tine gën a nekk danger ndax si la dóor Bombardier ba mu sangoo deret dóor kee ba mu sangoo deret mais bi mu ñëwee si Ama Baldé Ama Baldé da ko ku dàq bëree dàq ëpp fit ëpp jom yàlla daan keroog Ama Baldé si biir bi la toog moom Tapha Tine bi ko Boy Niang amee de Boy Niang si Balla Gaye ñoom la jógee rampe yaa ngi dégg ñëw war a war a confirmer si si Tapha dem si motloo Lo direct mais si Tapha dafaa daw ba combat ba fa la jeexe kon par avertissement lañ ko daane te mbër mu si nekk foofu ngay jaaga Ama Baldé li mu yor si fit boo ñaar xaaj bi xaajaat ba yoru ko boo ñaa day peese gis nga li ma la doon wax boo ñaar day peese gis nga la mu peese moo doyut parce que dugub ba da ko yootu. dugub ba àgg moo ko sës moo ko arrangé parce que njool mu doog a mën a sigg mais dugub bi fa ko jële ji si suuf. moo dul yoon. moo tax sa waay dóor ko petit ange. talone ko. fët damm ko. oh loo ndaam kenn jëlagul tànkam tànk ko. waru woon jaar foofu da waroon tàccu tànk yi yéeg si kaw. waaw kay ka xam ne boo ñaa ngi bi demee xelam mais boo ñaa ba mu demee si tànk ba dafa nelaw cinq minutes kon da doon ximaliku waaye jëlu tànk bi pour liggéey. jàpp ne jël tànk pour liggéey. non jël na ko pour jël parce que tànk bi muy jël bi mu koy jël da ko war a jël rek liggéey. mais jël ko rek liggéey laa wax. da koo jël taxaw parce que tànk bi bi mu koy jël si moom xelam jël si wu ko maanaam dafa sës maanaam pour nga dégg ma. bi muy jël si tànk bi daa tourné rek gis tànk bi leer mu sës mun na ko coppet déedéet nga koy taj yéegal yi nga xam ne boo ñaangee kartam jël siwul tànk bi dafay jaar xam nga jël si tànk ak jaar si tànk bi bokkul dafa am mbër yoo xamante ne dañuy ja bu bëggee si sa ndigg li sa tànk bi la ñuy jaar takk kaw bi yow bu laalee tànk bi rek sa xel mi si tànk bi lay ñëw rek palaa gi yéeg na bala ngaa ñëw si palaa gi def na effort parce que rawee na la benn temps mbër noonu lay bëree mbër mu nar a daan noonu ngay bëree da ngay rawee mbër mi benn temps fu mu calculer romb nga foofu Modou Lo xool foo calculer romb na foofu bi mu ñëwee yurnoo sawaay bi mu ko fëggee ñaari ku dugal ko benn épercule ay na joo xamante ni pikit dootu ñu ko fàtte ba keroog ñuy dee léegi gars yi euh, na daana ki nga xam ne mooy booy Niang gars ne dañ koy jox maire Pikine ñii ne dañ koy jox xalif général de Pikine lamaloog yow looy jox looy jox Modou Lo biir Pikine. non bala ma kaa jox dara Modou dama koy ñaan mu mu jàppale waa Taïba. waa Taïba mel waaw parce que maa ngi dégg appel yi yaa nga sa télé ba di bërëngu ndax kontaan. tundu 32 villages yëpp a ngay kontaan Modou Lo. jëlal sa convoi takk sa convoi def tournage boobu may leen ko nit koñam. nit dëkkam nit amul lu dul dëkkam Balla Gaye dem na Casamance def coron va ñeneen dem nañ seen dëkk def coron va yow bu la kenn jiitu Taïba parce que roi des arènes rek nga mën a jël waa dëkk ba xam ne yaa nga moom parce que tund Taïba dañoo sonn si Modou Lo te mi ngi koy def de parce que buñ ko tuddee dara mu dem buñ ko waxee mu gërëm leen mais li gën a rafet mooy booy yi mus ta gis Modou Lo tey bu Modou Lo rombee sa dëkk ba ñoo xam ne Modou Lo nga nee du loolu laa koy ñaan ba pare ñu doog a wax keneen fu mu jëm parce que waa Taïba waa Minam waa Saam Keek Joor Béyti Guèye Béyti Njaay Kër Madiaan ah, Ndoomoor Ciise Njóob Saaw foofu yëpp may wax xam na ko moo tax. tur yi wax garaaw la de. non mbër ak fas ak jéeg a yem da nga leen di juddlu ba pare doog koo xam boo xamee ay maamam dëgg xam ne ñoom ñooy rey gaynde yi ah Songa Njaay histoire Songa Njaay am na wala amut. Modou tamit boo xamee maamam dëgg xam seen seen daqaaru maram galago ku ko laal xam ne laal nga laalaate. lu xam ne laal nga laalaake moo tax yenn saa ñuy wax ci làmb ba si yàgg laal ko ma ma yëngu hmm. ma yëlbu parce que dama ko xam tey ñu bëri dañoo yaakaaroon ne parcelle laa far mais man mosuma far parcelle man géejawaay laa dëkk géejawaay laa nooyee mais damaa nekk mbër boo damaa nekk nit koo xamante ni du ma iñaane mbër dara hmm. lépp lu mu def luy liggéey dama ko koy waxal na continuer jàpp njàmburam demaat dëkkam saafoo leen ñëwaat toog pantre bi mais roi des bi moom bu ko kenn laal moom roi des arènes. non Modou daa war duggaat si kaaf gi noppalu. Ah. ñaari ñaar yi fi doon déranger de anam defaral nañu ko. léegi làmb ji làmb làmb bu doon nen la. Ah. baxal mayonnaise nañ ko omelette nañ ko. déedéet kenn omelette ko dañ kaa mayonnaise léegi séddoo moo si des. léegi nee ma nuñ koy séddoo. nuñ koy séddoo léegi rëg-rëg. ak Boy Niang combat la wala du combat. loolu dinañ si ñëw mais meeru Pikine. mayonnaise bi ah kon ñu tànk mayonnaise. ñu waaw ñu tànk mayonnaise bi. ko fàttee na gars yi. moo ko fàtte. moo ngi noonu nag meeru Pikine wala xalif général Pikine. ah meeru Pikine bi kañ commencé na biig si guddi ndax technopole am na benn étage boo xamante ni gars yi def nañ fa photo mu Lo si TikTok yi laa ko seet. technopole ban. si guddi gi lu xaati ngoon booy wàcce nañ fa benn monument. alhamdulilah. te monument yi nañ am ngor rek loolu foog ree la bu ko si kenn mer di ko xool di ko gis di xoos wala ngay mere ña ko fa def parce que day tax ëllëg boo daanee waa parcelle bañ jeex ñu def fa monument ka fa daan. gars yi lañ ci def de huile. non non kiñaan moom daa yàgg si sénégalais waaye ñii kiñaan ñu ngi tardé rek mais ñii baax a ngi dem rek. tey ji xoolal lu mel nii borom kii baax moo tax mu wooñu mhm. kon ni ñëpp jéem a roy si mbaax. xoolal mbaax dañ la siy fay bon dañ la siy fay boo dof dof loo bañ lay fay mbon yow la mais ñiy baax moom bis bu leen fay seen mbaax. Mhm. suñ Bàmba nee na bu ma fexeel ba bul ma tàngi bët loolu wax suñ tubaab nee na Touba ba ma koy sanc ñaar laa fa fekk ñaara ma fa fekk ak Winda akuk saawa ku yàlla yóbbu ak ku àdduna yóbbu. hop hop foolul moo tax yenn saa nga laal Touba day mel dañ maa pikiir parce que ñi xoolal yow ki amul kilifa moo fi nekk naan day dogal yow ñi am kilifa noppi toog yow fooy war a dogalee yow doo bàyyi suñ àjjana jële yow Touba boo fa dëkkee dëkkoo Sénégal de. yaa ngi fan jaaga Touba. Touba bokkut de. Ah. wute nañ. boo fa duggee doo fa gis mini. Mm. doo fa gis dangal. Mm. doo fa gis lu dul diina te saa yu noddee noddu foofu mooy ñëw ba fii. te boo fa duggee seen heure ak sunu heure bokkul. Ah. di nga fa dugg ba génn doo déglu musique. ah bu wute naa ak Sénégal de. ay ba ay ay Baay Faal la am. Mm. amul ay policiers yi di la maasi courant ka ramas di fay fayeeku ñoom ay Baay Faal la am dañ lay wax ndigal nga defoo ko ñu tereese la. fii nag fii dëkku tubaab la dañu xool say pièces voilà bu <laughs> ñu ne la yéegal. waaw kay. mairie bi wala xalif général. non mais siy joxe mairie bi fu ñu ko war a def nga war a wax fu ñu da war a def mairie bi fu ñu war a. fu ñu koy def kon. Ah, waxoon baax na bu ko defee du tool Moodu bu baax quoi. mais bu ñu demee ba Paku Lambaay jéggi autoroute bi am na benn pare benn côté bu féete ne fi oto Thiès yi di taxaw. oto Thiès yi fii taxaw. def benn poster boo xamante ne dañ koy bind monument Modou Lo booy dem Ngaay di ko gis booy dem Pekes di ko gis booy dem Ngaay di ko gis booy suñ màggee dañuy def dër bi parcelle Pikine nga xam ne te ni kenn dootu leen daanati. gërëma monument bi ñoom it dañuy fexe ba am monument parcelle. Ah. loolu loolu mooy dër bi. boo ñaa am na monument Guédiawaye bu doon bu doon Lac de Guiers mii ñuy xeeb naan yambar la. waaw tey nga xam ne Lac de Guiers bu doon monument am day taxaw. moo tax <laughs> kenn du ko xeebal njàmbaaram bàyyi leen yooyu yooyu baaxul tey xoolal fi ñu sebe te le pourtant Lac de Guiers saful jimbo saful tus. fa daan sax daa bëri. Mhm. buñ ko compté si mbapat ba léegi ma la koy te ay talent rek la daan ay sàkkajoor ay ñëpp bu mu leen di daan ñoom ñëppay doon favori tey ñëw rek ñooñu ne dañ koy rey mu jàpp leen daan bokkut ak kii nga xamante day koos xoolal ku yee gerte caaf di bëq mooy gën a gaaw a jeexal bokkut ak kii sànni ne par benn benn ëpp ëpp moo du moytu leen ko xoolal tollu ni nit ñi di jommal nit yow xoolal Modou Lo mu sumee ko di dox ci géew bi da nga naan kii benn voyage la. di ñi ko faral de. deful ko faral ñëw naa ma laam waxal waaye ngir yàlla loo gis. waaw mais ana yu nekk si ginnaaw man yi may gis ay golo yeek yooyu noonu moom man loolu pour la la. sëñ Alla laakal boo laajee demoon baa may laaj sëñ Alla mu ne la xaaj bi yëpp xam ñu dara ñi dañ ñoo yëpp nga naa ma fi la boo ñaar dañ kaa sotti galaaj ba bopp bi mel ni pajaas benn waaye nee na booy ñaa leen danga la ëppalee baal ak sa waay si góobaa bi karaw mais damaa gis Modou Lo takkul tinnul mais ma gis yenn sëriñ yi yi ñëw indi seen i gàllaaj indi lii tuur fii toj fii golo yeeg yooyu noonu lu mu demee noonu. maa ngi day Mbacke suñu première vidéo bi dama leen woon dama leen woon ku mën ni muy bëree ñëwal mu mu mu tong tong la si. premier jour bi bi muy bëree am na ñoo xamante ni maaraa yoo xam ne dañu doon ñaan yàlla na daanu pour seen projet dox. projet dox amuñu bi ma ko laajee signal dana ma làmb mun naa mun bu ko neexee mën na dem ñeneen téel ko kurus te du yóbbu benn biteel loolu mun na ne. Modou Lo kenn kenn ko mystique de Modou Lo bu amul woon mystique def ne ñu ko joxoon ak wantaay bi Modou Lo musu koo nangu Lo bu musa ana daanu si géew benn gaalaajam du fa fanaan bu leen ko fàtte mooy for lépp bala moo sibile tey Modou Lo nekk nante boo xamante ne teg bagage yële yëpp ñëw toog xam ngeen ne loolu bu ngeen ko gëmet man gëm ma ko cinq ans yi ngeen doon wax ibaadu la yëpp mi ngi doon defar boppam ndax Modou Lo waxoon na wax ju am sens. Modou Lo newoon na Ama Baldé mii damaa yàkkamtee laaj. mais nan nag bañ defar stade bi Pikine mu teg mag ñi si kaw teg boo yi suuf ma daan ko jaar autoroute. gànnaaw dem ñibbi. waaye démb ba ko oto ba ko oto police bi yebee ba si yàgg jaar au deux voies ne pin pon sama xel daal dem sa la mu waxoon. hop hop hop hop sama yaram di daw. waaw waaw xoolal Modou Lo beneen bi si des mu ne mu ne mu ne mu ne bis bu ma jëlee roi des arènes dina xam ne ña ko daan jël ak man duñ benn. wane na ko ndax def na fi loo xam ne nii depuis ca Yékini la gëj am. yaa ko wax kon jeex na. waaye làmb damaa xam làmb léegi. non de non yow ku njaroo si njaw di njaw xaayaan ku dégg séeréer xaaral ba ma bàyyi la rek ñu xam ne li ngoom ak Dakar bokkul mais boo si dagg bu nekk ku ko jàkkaaroo yow di tàqamtiku. ndax da ngaa nekk kër làmbaloo fa jaar ñam si. beneen bi si des mooy xoolal Modou Lo dafa ne ne woon dinaa si kenn deful mais bi muy retour si booy ñaar retourné si ñaari booy gañe ñaari booy mbër yu mag yëpp kenn defu ko ko yor roi des arènes bi di daan gars yi si ñi gën a tàng daan leen si yaramu neen xola da leen di duma daan leen. looy sama problème man. Ama Balde di ko téye wol ko ba mu mel ni tege-tege kii mu jël ko def ko sagaru tayukaay tayaale ko si. sagaru jël sagaru tayukaay la def boo boo tayee ceeb boo pare doo wut benn sagar tay indi boo ñaa si doon bañ a dugg boo ñaa te mu bañoon see dugg xaaraat temps mais muy def la ba longaale ko man ma dee ne boo ñaa bu ñëwee da koy def benn voyage sax jël fa lu kenn jëlu ah. Boy Niang bu ko daanoon day jël lu kenn jëlu démérité wul nag kuy wutee ñàkk mais mënul fexe ba du jot xeer parce que man làmb saa yu ma génnee xeer ñëw parce que bu may wax du yomb bu ma gañee de bu pour mu neex il faut ñu sànni leen i xeer boo ñu mën am jom man saagaaguma nit waxaguma nit lu ñaaw te li ma koy wax nii bu ma ko doon wax sax damay neex parce que nit loolooy tax mu am jom nit it loolooy tax mu bàyyi xel ay famem combat la woon dañoo war a gañe gañe boo ñaaw bu daanoon Modou Lo tey ji noonu la ñuy jibile nañ fàttali ko jour bañ daanee baala Gaye keroog Pikine foo sànni mbattu mu takk boo ñaa bu si xoolee si loolu day mën a muñ jàpp si yàlla ama seen a nga ne moo leen gën a métti defet foofu mm-hmm. te ba léegi mi ngi koy ñàkkante kenn xamu ko si te ama seen dañ ko ne kàccit mu ne si suuf su la am mm-hmm. kee dañ ko def quatre appuis kee li mu encaissé si coup boo ñaa xaaj ba xaajaat ba encaissé na ko wala encaissé wu ko Ama Baldé dañ kaa kor di wéer ko ndomb féete ko ginnaaw mm-hmm. di ko ko rokkas sa waay ne du waddal drapeau bi. ñuy rokkas mu ne du waddal drapeau Pikine. ñuy rokkas mu ne du waddal drapeau Pikine. daa mujj waa Pikine ñoo ñëw na ko doy na barke yonent bi moom Ama. ki ñaar lañ ko ñamal mu yooru mel ni oto. maa la wax loolu man wax foofu. non non bokkul quoi parce que moom moo xam maati lalam mm-hmm. ndax pare na naan ma si put lañ ma dóor. si put benn. waaw amul gaar xana eh. doo wàcce ñam ko wala mu dóor la si put nga dóor ko si bët. moom la ko arbitre bi wax. na ko bu la dóoree si nga dóor ko si bët. naa ko si weewu béy bi moo ne ko ne bu la dóoree si bët si but nga dóor ko si bët. parce que loolu da koy dugal ku. man tegal tegal moo def ay rek waa paa bi woon naa ko ko waa. dinañ ñëw si boobu mais laata loolu tey. per de góor bi mu raabee tajeeg sa waay sama yaram taw na mel na ni ba jéen kay rek daanu. loolu baa xam ne huit la mais oui ma dem ba passer gis gaa yi génnee benn tiset bu bees boo xam ne si guddi si nañ ko créé bind si ginnaaw Pikine loo des seen tiset yi ay say ay ay say am na ñoo xamante ni si biir Pikine bettu leen woon mais mënuñu ko woon jébile man mënoon naa laa wax si laa ji lu neex. dama la ne xam nga lu tax mënumaa jox. fogari mooy li ko sawaay dab boo bàyyee xel bi ma naan la sawaay dakaa dab Tyson bi ko dabee bi mu dabee ah, manga dakaa daan Balla Gaye bi mu dabee Yékini dakaa daan dab gi mu ko daba te man ma wax la ne lu leer wax la ne mënu koo yëngal